asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu man la Ousmane Dramé bu la conscience dañoo dir sawaatoon rek comme niñ ko fale defee bu fekkente ne am na loo xam ne jaaduwul euh, wala muy ab rumeur dugg ci askan wi ñu topp ko euh, ba fexe koo leeral dafa am lu ñu jaaxal trop trop trop ñun ñi nga xam ne ñoo les sénégalais de la diaspora maanaam les immigrés dafa am lu leen jaaxal loo xam ne depuis ba mbir mi yëngoo ba nëga ni ñu ngi ne tekk di déglu waaye dégguñ kilifa goo xam ne ñun lañ ko féetaleel mu ubbi géem yëm jëm ci noonu le ministre des affaires étrangères et des Sénégal de l'extérieur depuis événement bi amee ba nëga ni kenn dégg ko waxut jëmul ci nun mel ne daal département bi moom géré wu ko

moo war ubbi gémmiñam jëmee ko ci noonu le silence de Amadou Diallo est une catastrophe Amadou Ba est une catastrophe Amadou Ba yow yaa yor affaires étrangère Amadou Ba yaa géré le département des immigrés immigrés sa kàddu lañ bëgg a dégg loolu nag le ministre menteur de la justice wax loolu ñun duñ ko nangu nun Amadou Ba ban jëlee jël ay néew di ko indi bo juddo juddoogoo yow ñun ban dalé rek la suñu mbir booba do nitu dara wala wo dara kon Amadou Diallo waxal Macky Sall ne ko laaj na organisation mondiale de la santé nee na day fenn laaj nañ aussi médecins sans frontières du deug geustu nañ ko ci réew yi nga xam mo ko séqal nekk fi du deug

di quarantaine ay nit ci hôtel yi te kenn du fa nek amna na ñoo xam ne seen kër teud dañ leena a quarantaine pour lan pour am ci xaalis monsieur le ministre waxal ak ñun immigré yi ay dof nekkuñu fi immigré yi dañoo dox ba seeni daal dag am ci ñoo xam dañu jang bu diplôme bu nit amal nañ ko am ci ñoo xam ay intellectuel lañ tok am ci ay travailleur yo xam duñ lekk ak kon ñu mel non bo leen yoree da ngay am aw fit jàkkaarloog ñoom lii ngeen di wax lépp ci coronavirus bi li ci ëpp ay manipulation la nangu leen leeral dara peuple bi dara nangu leen koo leeral lépp ci njubadi ci ngeen ko lal noonu nag dama lay xamal fii Sénégal bi fi faatu te ay bokkam bëgg nu indi ko monsieur le ministre koor bi danañu ko indi Sénégal dama ne tant que fii ñu faatoo ñoom ñuy bàyyi ñu mën a jël néew yi delloo néew yi daa ñëw Sénégal cent pour cent cas de décès ci Sénégal yi booy mën a un pour cent wala deux pour cent moo ci dee ci coronavirus bi monsieur le ministre dama bëgg nga génn ubbi sa gémmiñ à la diaspora bi un problème Macky Sall c'est votre problème mais qui c'est le problème qui concerne les Sénégalais de l'extérieur ak Seni bokk Monsieur un Macky 100 francs pour des am néew je suis membre fondateur de l'association des Sénégalais d'Amérique membre fondateur de la Boc. bokk am un défi dee Amérique ba sun xel ci même bu néew yorul ñaari deureum ay bokkum yuruñu dara dama ne dañuy dañu dajay xaliss ba jël neew bi di waxee j'étais contrôleur cette association pendant quatre ans j'étais le trésorier général pendant deux ans et demi kon làmb tuuma li may wax dama ko xam dama ne ku fi dé ku ne bu ay bokkam bëggee daaju ko indil bi ñu nga sol nu Gambie sol nu Gambie sax gën nga sol France bu ngeen bañé néew yi dañu daañu leen wàcce Gambie sol leen fa seeni bokku di jël taxi dem di len séti di len ñaanal génnal amru Ba nga wax ak la diaspora le ministre de la de l'injustice ce menteur là on n'a pas besoin de lui yow lañ nommé yow doon nu bëgg nga jóg nga jàkkaarlu ubbi sa gémmiñ nu xam ci loo féete on s'en fout de tes relations avec Macky Sall mais comme yow lañ joxoñ ngay suñ kilifa sa kàddu lañ bëgg a dégg kon nu dellu jéggalu te ñaan jàmm te nun ñi ci àll bi